Euh, euh, ñi ngi sant yàlla bu baax bi ñu ñëwee fii tey ziyaare si ku tedd gi sëriñ Mountakha Mbacké xalif général de Mourides nam ko baaxoon di def mu dalal ñu dalal bu mucc ayib ñu ànd ak délégation bu mag bii ngeen gis muy délégation yeewi askan wi bi ñu ñëwee gannaaw bañ ko sante ci taxawaayam ci réew mi ndax ni ma ko waxee taxawaayam ci yoon wi sëriñ bi lépp lu yëngatu ci réew mi muy jàmm mi ngi ci mi ngi def camtulaay kàttanam di ko def ci jumaa ji di ko def ci daara pour yokk xam-xam xale yi di ko def ci paj mi di ko def ci ndox mi di ko def ci tali bi te képp koo xam ne danga am loraanga ci réew mi moo xam foo mën a bokk xoolul ndax ci yoonu lislaam nga bokk wala ci tarixam nga bokk mu dugal ci loxoom ba ñëpp teg ci seen bët kooku ku yàlla baaxee rek moo ko mën bu weesoo loolu ñu indil ko nuyoo doomam le président Ousmane Sonko ndaxte umpule woon ne jamono yi dañ fay ñëwoon am loo xam ne moo doon suñu mébét ñu àggale ko ko mu def ci taxawaay bu rafet yónnee ñu ci kii nga xam ne mooy doomam Ousmane Sonko ba ñu demee waxoon nañ ko yéen yëpp ngeen dégg ko nanga xam ne moom lañ ko fekkee woon mayuñu woon sax pour ñu jox ko yóbbante bi walla ñu wax ak moom alhamdulilah rabbi alamina ba nga xam ne ximmiliku na ñu wax ko ne ko ñëw nañ fa man ak ay dëmbooj te ñu ñii waa yeewi askan bi nga xam ne ñoo ñu yónni woon mu rafet lool lool li nga xam ne moom la sëriñ bi def yónnee ci moom kàdduy cant ak kàdduy ngërëm ne nañ ko xamal ne la nga xam ne moom la jàppoon muy xiifal ba dakkal na ko bañ ko waxee sëñ bitim wax dëgg yàlla mbégte mu rëy la am ndaxte ba ñu àggee foofu ci kàddu moom ci boppam moo ne alhamdulilah ndaxte ba mu ñuy yónni yónni ñu woon ci affaire politique diggante jullit ak mbokk jullitam la ñu yónnee woon moo tax tey jii biñ ko ko waxee mbégte mu rëy la am jox nañu ay kàddu nag ci taxawaayam ci réew mi ak yeneen jéego yoo xam ne war na ko cee def incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci barke yonent bi ci barke suñu maam Cheikhul Khadim loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne waxtaan nañ ko ak sëriñ bi di dolli sant di dolli gërëm di ñaan màggal gi yàlla nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm lépp lu fiy ngëreel ak xéewal ak wërsëg yal na ko yàlla wasaare ci Sénégal yal na yàlla saxal jàmm ci Sénégal.